xalim ahlan wolof ndax lan li may bañ dan ne daa leerut xibaar day leer ba tax doo réer di wër am riir te li yombut xibaar barbaar xalim axbaar yi ngeen doon xaar te lañ doon wut li xew tay cees fu ne xëy fees idée tax cees orange yombut koloor nañ cees orange bii sees idée xëy fees ko kenn xeexut ku doon wax cees na xëy wut piis te ñaw wut sees idée juumut idée toj cees idée xew cees idée tax cees kemam bam yombut idée jël cees defar bam yees li lee tax cees garoo ko wut ku xëy gis cees ci doomam fees gi xëy am cees savant yombut bu dee xam-xam bu dee man-man bu dee am xel idée kuy wut wutal kuy waar jullit ñay waar ñu bon ñay waar ña jub yombut du tas yaakaar ku fal kii xaar lu néew gis aar bu kenn foogut ku gis jàmbaar ba noppi xaar falal kii kaar kemam yombut ewaay Sénégal idée sunu lu neex ni tukki gaal gu kenn paasut dimaas a Thiès la woon seen i dégg waa Thiès ku wér doowut xalim axbaar la woon axjaar yi jiilee aar ko tax teewut xalim axbaar la woon axjaar yi jiilee aar ko tax teewut alhamdulillahi rabbil alamin